coow li wéy ni cooboy ci diwaanu Madiana fii ci Touba gannaaw ba nga xamee ni dawul xare fàtt na Baye Zall askan wi di wax ne jéey yi bari na waaye ay way jóge feneen ñoo ko fi indi. nga xam ne ñoom ñoo ñëw fii def affaire yi dëkkuñu Madiana Madiana ñi fi dëkk ay murit lañ ay taalibe lañ li ñu xam mooy liggéey jaamu yàlla ndax boo xoolee fii nga xamee fañ taxaw nii ci marché bi sëriñ bi nga xam ne da ko joxoon dong ngir yàlla gi mu Sëriñ Touba te xam ne taalibe y bëgg nañu yor seen kër bëgg nañu yor seenu njaboot. tax mu jox leen fii nii ñu fi ñu fiy daan seen doole ndax boo xoolee Madiyana war naa am kaaraange ak loo xamante si nii tey dañu ciy jàppale man ne bu police wala gendarmerie ñu wutal ñu kaaraange yoo xamante nii ñi nga xëy dañu fi xëy ji liggéey ñu mën a liggéey tranquillement mën a wàcc mën a ñibbi waaye bu fekkante ne ñaawteef yi dañuy ñeneen dañuy jógee foofu di fi ñëw di fi def ay ñaawteef ba ñu di ko jiñ waa Madiyana loolu rafetul waaw bandi bandi yi ñu mbubboo di waaw ki mu ki mu rey moo bokk fa saret waaye ki bëy bi moo bokk fi waaw bandi yi dëkku fi fii Madiana la Madiana kër sëñ Cheikh Say la sëñ Cheikh tam wax dëgg noo jàppale la pour ñu liggéey jaamu yàlla waaw man mi waxee si borom kër laa léegi rek la xam xawma leneen soxna maam say Mbàkke yore kàddu chef de quartier bi sëriñ Abo di leeral ne coow li bari na loolu waaye Madiana moom nen ko ci ni keccet ndaxte coow li coow li feneen la ndax dafa metti ci xol mooy lu toll ne sëriñ Soy Mbàkke yàlla cëloo ko li mu ko cërale sëñ Tuubaa si doo ko cër bu séddu kenn mu ci Madiana def fi ay ñaan sëñ Soy bi kenn ku ne xam na ci lu diine ak lislaam kenn xamu ko ci ak njabootam tamit kenn xamul ci lu diine ak lislaam loolu mu ñu fi ci turu sëriñ Abo Mbacke mi safte carte bi ak turu waajuram ñëw pour leeral xale bi réewul ko ma yaana ndax at yee ci as ndaw soo xam ne nii benn waay moo ko fekk ci mu néegam jëm ko paaka te loolu bokk ci Madiyana mi ngi fi ci gaas daaru la ñi leer na Madiyana te moo sepp dëgg na Madiyana ak faneen lu jéggi tër bu jëm soow rek mooy Madiyana waaye lu bokk ci Madiyana ndax li gën a rusu te gën a metti suñu xol ñun njoppatok suñu sang yi ndax lu toll ne Madiyana amul benn poste police amu fii takkaat yëpp am poste police loolu warut boo xoolee marché bi ñaan marché doon ko ba tas marché bi yërmande Serigne Cheikh Mbacke moo tax mu bàyyi marché bi nii ndax ay taalibe dëkk jógee seen dëkk ñëw Touba bëgg lu daan seen yor seen seen njaboot bu leen bàyyi ci marché bi nag jaayu leen ko looyewu leen ko ñuy di daw départ ñaanoo tas marché bi loolu day lu ñaaw loo xam ne nii kenn waru ko wax sax am na ko ñëw ci man sama kër Madiane Cissé ma waaw dama watas tas marché bi ndax ay dëkk fi suñu so murk do ab katem ay bandu fi dëkk bandi dëkkul di te loolu nag moytul kenn mooy lu bon lu wax ñu ne Madiane te lu baax dikk ñu teggi Madiane te lu bon dikk ñu Madiane moytul kenn ku yàlla bind te wax ji nag daan leer laa leen te moytul sax ki nga xam ne borom ma di kilifa gi dina waxal boppam war nañ fee dimbali assainissement amul Madiane bu ne jotee kenn ku ne fa nga toog ngay ndox amul Madiane te kenn ku ne ne bi ndox ci ku nekk ak set poste police amul Madiyana benn tali mariana Madiyana tali bi dugul Madiyana ba tali bi jaar mariana sis mariana sis tax ko jox taw feex la won jëm ah Madiyana sis Madiyana sis tax ko jox seigne sang bi nag du ko sédd njabotam njabotam njabootam xamuñu wax muñ ak nekk la war nekk la nekk mo don na man wan nañu xaar rek am na mun mu tax ñu ñoo leen di waxal an taxu Madiyana bañ nañ ko ba ñoo jóot seen bop won jëbat ko sëñ sang bi gëna commencé seigne cheikh mi bop ko seigne sang bu ba ci sëñ Abdou Samad ak njabootu sëñ Samb wax leen ko kenn ko ne sa sa sa xaalis def ca muy góor muy jigéen loolu ba ko andee ñun ñoo jël seen xaalis boobu jënd ko ay tewo def ci Madiyana léegi na lem ba des mooy lu nuy waxati Tuubaa nañ ci boole Madiyana ndax li gën a rëy ci Tuubaa mi université bi xam ne ko ëpp ci Afrique bëriwul Madiyana la nekk te bu ko def daa mel daa xamoon lii moo ko sëriñ Samb ñaari forage yi gën a mag ci Tuubaa Madiyana la te benn teew mag duggul Madiyana loolu tamit xam lu metti Madiyana la santé baa nga ne fu ne sëñ bi taxaw na wax ko fa dem na fa tey gis nga na mel fu ne jooytu nañ ko fa gis na mel. teewul Madiyana am ay jafe-jafe yu métte métti bokk na ci ñàkkum poste de police waaye it poste de santé bi nga xam ne gëj na am ay dotation ñoo ngi doon def démarché yi doma def nañ ay demande yóbbu mais jusqu'à présent gisaguñu dara fonds de dotation non de dotation non c'est le comité qui qui qui qui les médicaments. fonds de dotation mairie moko tout l'ensemble des postes. de sa zone léegi nag ñun man mosuma ne man bi ma nekkee fi ba léegi kenn mosuma jox euh, kayit boo xamante ne fond de dotation bi dangay dem ñu bind ñu jox la médicament waaye man fi ma nekkoon dañ ma ko do chaque année ma ma jot ko mais fii moom jotuma ko.